الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala cant gu mu yelloon di jullite sëlmal ci sangu-sang yi suñu yonante muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu mbokk yi ñu dénk suñu bopp di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala ragal yàlla mooy yoon bi nga xam ne ku ko jël suñu borom orienté la ci lépp lu baax ci sa mbiru aduna ak ci sa mbiru diine mbokk yi ku settantal taarix di histoire ci tàmbali nam ba léegi settantal mbiru dëkk yeeg mbiru xeet yi ak mbiru jikko yi ak mbiru jëflante yi yàlla tudd ak histoire wane ko ci kaw suuf danga fekk ñi gën a bon gën a yées jikko gën a ñaaw jikko gën a bew gën a ñàkk jom gën a mën a tooñ gën a mën a jalgati gën a bon gën a yées gën a mën a def lu bon gën a mën a wor mooy yahud mooy juif xeet yooyu nga xam ne suñu boroom da na a mere ñu nekk ñoo xam ne ñu rëbb lañ alxuraan melal leen ci ay melokaan yoo xam ne boroom xam-xam lim nañ ko mu dem ci lu jege téeméer ak benn ay workat lañ ñu beew lañ ñu kàccoora lañ ñoo dàq mooy yàlla ñoo gën a dëng ñëpp ñoo dàq weddi yàlla xeet lañ woo xam ni yàlla da leen a mere seeni yonantu mere leen ñoom ci seen biir ñu merante ci seen biir xeet lañ woo xam ne wu soxor lañ xeet lañ woo xam ne wu iñaan lañ foo natt ak iñaan seeni keñaan romb na ko seen xol yi dafa wow te suñu borom moo leen melal loolu ngir njombe yi def seen diggante yonant ci jaar ci Ibrahim ñëw ci Muusa yonent yi dox diggante Muusa ak Isa ñëw ci Isa ak yonent yi nga xam ne jaar nañ ci diggante bi loolu lépp suñu borom daal di koy nettali ñu nekk ñoo xam ni ñu xam mbirum yëfu sauvage lañ maanaam loo xam ne ay rabu àll ki animaux ñoo ko war a def ñu xam mbirum dëng teeg mbirum kàccoor lañ amul kenn koo xam ne ci histoire ak li alquran wane mën ngaa yem ak ñoom ci jëf ju bon loo def séenoo leen loo def doo leen seen suñu borom noonu la leen melal xaaruñu ci kenn loo xam ne mooy ak kersa wala am luñ lay rusee amuñu amuñu rusukaay amuñu kersa ñun ñoom ñoo xam ne du ñu respecté pacte benn pacte bu doomu aadama mos a signé ak ñoom kóllëre gu nit si ñeen ñoom duñ ko respecté ku ko si ak ñoom ñu war la. war nañ yàlla war yonent yàlla Moussa war Isa war yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam ci yahudu banu Qaynuqa ak banu Qurayza ak banu Nadir ci Médine kon nekkul ni ñuy respecté li nga xam ni moom mooy pacte alxuraan da koo wax taarix wane ko du ñu respecté lu ñu signé jamais ñu ne ñoo xam ne buñ la jekkoo wan la ne jekku nañ la soo leen jekkoo ñu pare pour daal di euh, seddal mbir safara si sedd bañ préparé waat. ngaan naa yaa tegaat ay pexe xool nuñ la jekkale saa boo leen jekkoo ñoom ñu woote jàmm mais ñoom saa buñ la jekkoo duñ la baal dañ lay massacré xeet lañ woo xam ne noonu lañ mel wow nañ xol lool ñàkk yërmande lool ndingate ak kàccoor ak tooñ ak bew ak jalgati ak ñoo ci mën ci jamono yu yàgg ba léegi suñu borom dani ñoom yahudi li tax mu rëbb leen mere leen te dinaa leen alak mooy fa bi ma naqdihim misaaqahum mooy kóllëre yi nga xam ne dañ koo fecci la annaahum ci laa leen rëbbee wa jaalna qulubahum qaasiya ñu def seen xol yi mu doon ay xol yi wow parce que lu doxoon seen digganteeg yàlla ci Muusa ba mu dugal leen li nga xam ne mooy addiyaar al muqaddasa tey te mooy Palestine nga xam ne da leen faa dugal moomuñu ko te charte bi moo nekkoon ñu xeex xeexuñu Muusa jël acte digganteem ak boromam bu dugaleen ci dëkk ba ñu war yàlla war Moussa romain yi ñëw génnee leen fa romain yi ñëw génnee leen fa histoire di dox di dox di dox ba 1967 ñu joxaat leen fa loolu tey waral liñ fay def ñu gis ko suñu borom ko ne dane dafay wowal seen xol ngir lan seen dëng teg seenu kàccoor lan moo tax bëri na lu tudd sabab la mbokk yi gis ñu aw xeet ci kaw suuf bu jàpp ay yonent li leen rey comme yahudi ñoom ñoo fi xeet wu ay yonent arab yi reyuñu yonant te yére yàlla yonant yi yéen yëpp ci xeetu juif lañ génn ak xeetu arab ñoom rey nañu ay yonant yoo xam ni kenn xamut nu mu toll yii yonant reyuñu leen dañu leen mbugal suul leen ba seen bopp yi di feeñ ñu leen di mbugal ñi ñu sotti leen ay ndox yu tàng ñi ñu takk leen ci ay gaal ku dellu ci xeesul anbiya bu ibnu kasir ñetti yonent yàlla di nettali ci suratu yaasin jël nit takk ko ci gaal jël gaal gi di ko diri ci biir ndox mi di ko yóbbu ba mu faatu ci géej gi façon ndigal bu nekk def nañ ko yonent yàlla yi ñoom ñooy al yahud suñu boroom yónni ay yonent ci ñoom yonent yi jubluwaay bi lenn la mooy génne leen ci réer ak ndëng te yóbbu leen ci njub yóbbu leen ci seen boroom yóbbu leen ci siraatul mustaqim ñoom ñu ne bëgguñu baax bëgguñoo di leen jéem a wane mu baax ñoom ñu ñu wan leen seen ndëngte baaxuñu te bu leen kenn baaxal yonent yi ñëwoon ñoom di leen jéem a waar ak di leen yóbbu ci yàlla ñu jëflante ak ñoom ci anam googu moo tax rey nañ ay yonent mbugal ay yonent tëj kaso ay yonent xeetu juif moo ko def jëli yonent teg leen kaso xeetu juif moo ko def ci kaw suuf waaw ku mën a jëflante ak noonu yonent dina bàyyi ku dul yonent yonent bu yàlla yónni ku ko mën a teg coono ak mbugal gu toll noonu waaye yonent bu yàlla yónniwul noo koy def loolu mooy li nga xam ni mooy seen melokaan ci ci kaw suuf yàlla mu ni ñu ne dañoo jëloon kóllëre ak waa banu Israil ñu dinaa yónni ci yéen ay yonant waaye saa bu ab yonantu ñëwee te neexu leen la wax neexu leen dëppoot ak seen bànneexu bakkan ñu weddi leen fariqan kaddabu wa fariqan yaqtuluun yeneen kuréel yi dañ leen di weddi mbugal leen mais ñeneen ñi dañ leen di weddi duñ fa yem rey leen dañ leen di rey yàlla mu ne kóllëre gi ñu weddi sam ci sababu kóllëre gi ñu weddi ak seenu kéeféer ci aaya yàlla yi weddi aaya yàlla yi ak rey gi ñu doon rey yonent yi te teguñu ci dëgg yàlla mu ne ak wax gi ñu doon wax ne suñu xol yi dafa wow yàlla mu ne xol ya wowul man maa kaste xol ya te du ngeen gëmati ba mukk nag wala ñu néew ci yéen ñooy gëm borom bi dellu waxaat ñi nga xam dañoo weddi aay yàlla yi tey rey yonent yi te teguñu ko ci dëgg di rey ñi nga xam ne sax ci yéen dañuy digle lu baax te duñ sax ay yonent ci nit ñi yàlla mu ne bëggal leen dinaa leen mbugal mbugal moo xam ne mu metti la mbokk yi alxuraan amul kenn ko melal ci ndëngate ak mbon ak xol bu dëgër ak ñeme tooñ ak ñeme jalgati àq ak ñàkk yërmande boo jàngi alxuraan ba mu jeex lu toll ni li nga xam ne mooy xeetu yahud ci li nga xam ne moom la jamono seede waaye moom la alxuraan nettali ci ay nettali mbokk yi yahud yi ay nit ñu mën a teg pexe lañ ay nit ñuy waraate lañ ay nit ñoo xam ni ñu mën a mbugal ku dul ñoom rawatina jëmale ci wàllu jullit ñi lañ képp ku dul dañ laa noonoo de bàyyiwuñ kenn ba ci chrétien yi waaye seeni noonoo ci jullit ñi moo gën a fës comme ni ko alxuraan waxee te taji dem na ashadda naasi adaawa lilladina amanu alyahud da nga fekk ñi gën a bañ ku gën yàlla ci kaw suuf ku wax ne gëm naa yàlla loolu jullit ci kaw suuf mooy ki wax ne yahud la loolu moo tax melokaan yooyu borom bi melal leen melokaan yu dëggu la yu sax la te lu jamono dem mu gën a dëggu suñu borom nee na lu baax su leen dalee lu baax su leen dalee yéen jullit ñi ñun yahud yi dañ ciy mar te bis bu leen lu bon dalee yéen jullit ñi ñoom ñu kontaan ci waaye ni ngeen mun te ragal yàlla seeni pexe du leen jëriñ dara ñoom parce que yàlla peeg na li ñuy def mbokk yi wor fekk ci ay kóllëre diggante duñ ko def loolu mooy jikko yi nga xam ne moom lañ siiwee moo tax suñu borom ni ñu gën a yées ci kaw suuf di dox ci kaw suuf fa yàlla mooy ñi weddi yàlla te ñoom du ñu gën te saa dinañ ñoom bu si neen ñoom benn accord ñu war la weddi accord ba ci bés ci yoon bu nekk nag ñu weddi ko daal di fi daal di euh, yàq accord bi daal di koy firi te ñoom lu ñu ragal la ñuy firi duñ ci ragal dara mbokk yi yahud yi dund nañ ci kaw suuf di yàq yàq ay société ci anam goo xam ne gu doy waar la jëf-jëf yu ñaaw wax-wax yu ñaaw ba jëmale ko ci àqu yàlla dem nañ ba ne yàlla dafa nay loxoom sax dafa banku jëm ginnaaw yàlla weddi leen leen yàlla rëbb na leen ci li ngeen wax loxoom dafa tàllalu te borom bi day joxe nu mu ko soobee mbokk yi li ñaaw ci kaw suuf muy jigéen jaay boppam yahudi ñoo njëkk indi ci kaw suuf jigéen ju jaay boppam ci yahudi yi la njëkk a ci histoire tasaare wàllu al inxilaalul jinsi mooy ak cakaay ci kaw suuf yahudi ñoo ko njëkk indi ci kaw suuf ñoo ko njëkk indi ci kaw suuf am ay samp ay kër loo xam ni ku bëgg mooy yàlla ci jigéen fa ngay dem ñun ñoo ko njëkk indi ci kaw suuf waaye wutinu alal gu ñaaw ci kaw suuf wutinu alal gu ñaaw ñoom ñoo koy njëkk indi ci kaw suuf ci wutin boo xam ne bu bon la alal jaral leen lu nekk nag parce que ci lañ jaar bu moo dominer àdduna bi ñu jaar ci ñaari mbir mooy jaar ci a àdduna jaar ci am alal ju bëri joo xam ni ku bëgg alal damay wëlbatiku di ko wuti ci ñoom loolu moo leen may tey li gën a rëy ci banque àdduna bi ñoom ñoo ko yor waaye jaar ci lépp loo xam ne yëgleekaay la ba kuy wax da leen di waxal muy wàllu média yi maîtriser ko lool ba tey média yu bari tey lu neex yahudi moo fay yàlla gis ngeen Facebook bi rek boo ci waxee lu ñaaw tey ñu bloqué sa compte boo ci waxee rek lu ñaaw jëmale ci juif yi aaya alxuraan donc boo ko bindee jëmale ko ci ñoom wala xadis wala nga wax ci ñoom lu ñaaw ci làkk bu mënti doon ñu bloqué sa compte wala ñu jox la avertissement def pour nga mën bi ba kenn du wax lu ñaaw jëmale ko ci ñoom te li ñuy def lu ñaaw ñëpp teg ci seen bët kenn du ko demee wax il faut nga amul naafiq ba mën koo tuddee neneen waaye doo ko tuddee loo xam ne jëf ju ñaaw la doo ko tuddee ak jalga ci doo ko tuddee ak mbon loolu mooy li nga xam ni mbokk yi moom lañ def mbokk ko ku alxuraan melal nii leeral sa mbir ba mu mel nii kon jullit bu nekk war naa xam ni kooka du ko baax te jullit bu nekk warta sëcc sàkk ci li nga xam ne mooy sag mbon comme ni ko alxuraan leerale yàlla wàccee ay saar wàccee ay aaya bu ci nekk di leeral ak di feeñal ak di toroxal li ak di wëññi li nga xam ne mooy seenu awra ba dootul nekk lu lëndëm ci doomu aadama yi suñu borom nag dafa waxoon ni ñii laay leeralee samay aaya ngir ñi nga xam ne ñoo ñi yor ñi sóobu ci yoonu kàccoor ak yoonu ndëngate seen mbir mën a leer mbokk yi dara du yéeme ci ñu xam lu tax yahud yi noonoo noonoo lislaam noonoo jullit ñi parce que lislaam dafa ñëw màbb mbooleem luñ bëgg a saxal ak luñ bëgg a samp wane seenu ñeme yàlla ak seen mën a sos seen ndëng teg seenu kàccoor seen naxaate ak seen i pexe lislaam rek moo ko feeñal lislaam dafa ñëw di woote ci ngëm yàlla wéetal yàlla ak sellal yahud dañoo ñëw di woote ci kéeféer weddi yàlla ak fen ak dëddu lislaam dafa ñëw di woote ci jikko yi rafet ak melokaan yu baax yërmande rafetal jëme ci doomu aadama yi ak saxal jàmm ci kaw suuf ñoom dañoo ñëw di woote ci ak ndëng kàccoor ak rey ku dul yahud ak li nga xam ne mooy noonoo ak xeet yi waaye ak jalgati àq ñeneen yi kenn amul àq ku dul ñoom lislaam dafa ñëw di woote ci kersa di woote sutura di woote ak nite di woote li nga xam ne mooy wax lu baax ak jëf lu baax ñoom dañoo ñëw di woote ci wax ju ñaaw wax ju bon di woote ci fasaad mooy yàq ci kaw suuf di teg ay pexe ak li nga xam ne mooy bew ak jalgati lislaam dafa ñëw di woote ci ñu respecté àqu doomu aadama yi respecté kàddu say kàddu boo ko waxee nga respecté ko li nga diggalanteeg doomu aadama yi moo xam ne wax na wala loo bind nañ ko respecté ba soo ko respecté wul teg ko ci sa bànneexu bakkan dafay dugg ci bàkkaar yu mag yi lislaam dafay araamal tooñ ak néewal doole koo xam ne yaa ko ëpp doole ñoom reconnaître uñ benn àq du ñu reconnaître lu ñu signé ak yow parce que mbaam lañ jàppee keneen ku dul ñoom moo tax mbooleem pacte yi ñu signé muy ay pacte international amu ci benn boo xam ne respecté nañ ko te ñoom pare pour bàyyi tooñ pare wuñ pour bàyyi jalgati loolu mooy seen mbir lislaam dafa ñëw pour araamal rey bakkan ci lu tegewul di dëgg araamal sàcc araamal njaalo araamal wutinu alal bu tegewul ci yoon ñoom dañoo ñëw pour daganal ne seen seen doctrine lim leen jox mooy ku dul yahut pour deretam dagan na sàcc alalu ku yahut dagan na jalgati àq ku dul juif dagan na mbokk yi ànd ak lii lépp nag ba tey am ñu gëm ci doomu aadama yi ne war ñoo mën a dëppoog ñoom ci dara war nañoo mën a signé ñoom yi acte wallahi caaxaan la alxuraan moo la wax ne duñ ko respecté ngay naa signé ñoom dañ ngi signé ñoom yëmuñu fa ñoom dañoo jàpp ne ñoom ñooy la yàlla tànn ci kaw suuf yahut boo nekk ci seen téere bi gën a rëy muy talmud talmud mooy téere bi tafsir tawra te tafsir boobu histoire bu rëy la ci borom xam-xam yi wax ñoom dañoo jàpp ne ci Moussa la jóge wala ci ashaabu Moussa te dara du ci dëkk seen pôle mi muy Kuddis pôle pôle 1 ci moom la bàyyee ko pôle 1 nga xam ne moom lañ wutal ay tur yu bëri ne chrétien la woon dugg ci diine juif pour yàqu ko comme ni Abdallah ibn Saba nekkee woon euh, moom it yahud bu bon dugg ci lislaam pour yàqu ko pôle noonu la def xalaat yooyu nekk ci Talmud ne day firi tawra ci moom la jëkke nga xam ne tey lu ëpp ci israiliyaat yi ñenn borom xam tafsir jël sax foofu mooy cosaan li ñoom li nekk seen mbir mooy ñoom ñooy peuple élu ci kaw suuf benn ñaareel bi mooy Palestine mooy ardullahi mawuda mooy la ter promise beneen bi ku dul yahut ci ñoom ku dul yahut ci ñoom mbaam nga mbaam nga yàlla dalaa bind ci suratu insaan ci melokaanu nit rek pour nga xidmaa leen liggéeyal leen mais mbaam nga wallahi loolu moo nekk seen i mbind i téere seen xaaxaam gën a mag seen borom xam-xam kàngam yi gën a mag muy Ben ak ñu mel ni ñoom loolu la ñuy seen i conférence internationale tey boo duggoon ci YouTube bi loolu nga fay fekk mooy yàlla dafa bind yeneen askan yi ay mbaam lañ mais suñu borom da leen bind ci suura ci melokaanu doomu aadama pour ñu mën a liggéeyal juif yi ñoom ay bon ak mbindaanu juif yi lañ ba tax na ku ko ci deful nga jàppee bon nga ñu toroxal nga ñu suufeel moo tax amul benn doomu aadama bu ñu respecté amul benn peuple bu ñu respecté amul benn état bu ñu respecté ku dul ñoom seen bopp loolu mooy li nga xam ne mooy seen mbir moo tax seen diine sax moo gën a compliqué diine juif parce que mën ngaa nekk ku la neex ñëw dugg ci lislaam mën ngaa nekk lu la neex nekk chrétien mais ñoom pour nga nekk juif àqam deretu juif mooy daw sa kaw boo jógee woon fële tuub ñëw nekk juif duñ la considéré loolu moo leen booleeg juifu éthiopien yi moo leen booleeg juifu yeneen askan yi tey yu jóge Djibouti ak feneen parce que deretu juif dawul seen dawul seen dar moo tax dañ leen a bannir boo demee Israël fekk fa ay nit ñu ñuul ñu ne ñoom ay juif lañ dañ leen a bannir classé wul leen ci juif dañ leen a dàq di leen tooxal di leen massacrer jàppee leen ay jàng ay mbindaan ñu leen di liggéeyal waaye boolewuñ leen ci xeetu juif parce que ci ñoom xeetu juif deret la joo xam ne deretu Israël muy Yaaqub foog mu nekk ci yow bu dul loolu mënoo nekk juif ñooñu kon ku dul ñoom baaxoo loolu moo leen boole woon ak Hitler parce que Hitler dafa jàppoon ne xeetu allemand moo gën ci kaw suuf ñoom ñu ne xeetu juif moo gën ci kaw suuf ne man ak yéen mënuñ bokk kaw suuf jàpp 5 millions juif dugal leen ci ay fuur diggante Allemagne Autriche Norvège Suède lakk leen fa. loolu indi li nga xam ne mooy holocauste ak yeneen ak yeneen ci wàllu histoire yoo xam ne ñi ngi réclamer. ay droit di réclamer ay peine ci pays européens ak Allemagne pour ñu fay leen ko li nga xam ne mooy seeni àq kon mbokk yi loolu mooy ci gàttal histoire ak li nga xam ne mooy xeetu juif dañoo gëm ni bu nekkutoon ak juif yi nekk ci kaw suuf yàlla du wàccee taw taw bi wàcc parce que barke juif yi ñoo fi nekk juif yi bu ñu fi jógee woon dund gi amatul barke dund gi amatul barke loolu mooy li nga xam ne mooy seen pas-pas loolu mooy li nga xam ne moom lañ gëm loolu moo tax ñun war na ci ñun xeex bi dox diggante ñun ak yahudi juif yi ñoom dañ koo def xeexu diine ñun jullit ñi malheureusement suñu mbokku arab yi def ko xeexu arab ak juif te wallahi bu fekkee rek dafa des ci mbir mi diggante arab ak juif du ñu libéré Palestine arab yi mënuñu sonal juif yi waaye dañ ko def xeexu lislaam ak juif mu nekk xeexu pas-pas nekk xeexu diine comme ñoom ñu amee ful def ko xeexu pas-pas def ko xeexu diine waaye xeexu arab ak juif du sotti loolu du ko yóbbu fenn ba mu commencé ba léegi bokk na ci li tardeel problème bi mooy def ko xeexu arab ak xeexu juif déedéet xeexu jullit ñi la ak juif loola alxuraan moom la wane yonent moom la wax moom la wane jullit ñi ginnaaw jamono yu yàgg ñun ñoo ñëw nanguwaat Palestine nanguwaat li nga xam ne mooy Jérusalem ci loxo juif yi nangu ko ci loxo romain yi Omar ibn Xattaab ubbi ko ñu jox ko caabi ci mu teg fa. jullit ñi nekk fa mu dema dem bañ jël ko ba di salaahu din al ayubi ñëwee daal di koy jëlaat ñu dema dem ba 1947 ñoom ñu daal di koy daal di koy jëlaat après deuxième guerre mondiale ci li nga xam ne mooy tubaab bi jox leen ko mbokk yi war na ci ñun ñu xam ni xeex bi kon xeexu diine la ngir lan mooy Palestine suuf soosu fa la yàlla di dekkalee jaam yi mooy ardul mahshar xadis yi ñëw bëri na lool mooy ñetteelu jàkka ci jàkka yi màgg ci lislaam fa la yàlla rañaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam yóbbu ko ci kaw asamaan fa la yàlla dekkalee yonent yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di leen di jiite kon ku ci am àq waa lislaam ñoo ci gën am àq beneen bi mboolem yonent yi fa nekkoon mu yonent yàlla Muusa di yonent yàlla Suleymaan Daawud di yonent yàlla Isa ay yonent lam ñoo xam ne jullit yi dañ leen a gëm yonent yi lislaam lañ kenn gënuñoo yàlla ci ñoom kon ñii di xeet wu ndaw bii nga xam ne tolluñu leen muy juif yi teg ci loxo di massacre jullit ñi di leen mbugal lii xew naqari lool rey ay xale rey ay màgget rey ay jigéen def ay xale ay girim ay jigéen di tënj seeni borom kër bàyyiwuñ kenn toj ay jàkka xotti worma lépp loo xam ne lu ñu tëral la ci norme de guerre ak ay règlement yoo xam ne guerre da ko respecté ñoom respecté wuñ ko dañ ko dañ ko bafuwe kon ñooñu nit amatul lu muy séq ñoom ci teraanga parce que ñoom xamuñu teraanga xamuñu tedd nga loolu moo tax jullit ñi seen yaa fuus seen bàyyi seen diine seen ñàkk ngooy seen diine kenn ku nekk wut loo samp téye ko loola dox sa digganteeg alxuraan dox sa digganteeg sunna dox sa digganteeg yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moo gën a màgg ci yow ko yàlla ak yonentam loola ngay xaar ku ko tudd xaaroo ko tudd yàlla xaaroo ko tudd loolu moo leen delloo ginnaaw sori leen seen borom yàlla seetaan leen ñu yaafus lool di dund ak coono ak mbugal ak ay jafe-jafe suñu borom dafa waxoon ni lépp lu leen dal ci musiba yéene ko fàggu ci seen i te sax nag yàlla am na yu mu leen toppeewul baale na lu bëree bëree bëri mbokk yi kon foog ñu dellu dellu gu dëgg jullit ñëpp ci kaw suuf dellu dellu gu dëggu dellu gu yàlla gërëm ci wéylaat suñu ngëm suñu digganteeg suñu borom rafetalaat suñu jokkoo suñu digganteeg suñu borom subhaanahu wa taala sori lépp loo xam ne ak ndëngte la ak mooy yàlla ak kàccoor ngir ñu mën a amaat tedd nga ak ndimbal ak jàppandal gu bàyyeekoo ci borom bi subhanahu wa taala parce que ndimbalu yàlla ak euh, euh, ak mayam ak taxawu la ak génne la ci ay jafe-jafe ak mayaat la kàttan ak doole loolu mu ngi fi toujours waaye dafa ay charte dafa ay condition yu leer yu ñëpp xam waaye jëfe jëfe ko la war a def nag doon te jëfe ko dafa laaj étape yu rëy rëy bëreeg bakkan bëreeg yu bëree bëri su ma dafa wax ne yàlla dig nañu gëm yàlla ci yéen tey jëf-jëf yu baax yàlla dina leen jàppandal wuutal leen ci kaw suuf ñu wuutu fi ñi nga xam ne ñoo ñoo fi nekkoon comme ni ko yàlla defee woon ñi jiitu woon yàlla dina leen dëgëral diine ji nga xam ne moom la leen gërëmal yàlla dina leen soppil ay tiitaange mu soppil leen ko li nga xam mooy ak dal ak ñàkk a tiit amatul dootu am kenn ku ngeen tiit wala ngeen koy ragal ci kaw ngeen jaamu ma du ngeen bokkaal dara képp ku wejj nag ah ñoom ñooy ñi kàccoor kon suñu borom wax na ban yoon la ñuy jaar tracé na ko bu baax a baax a baax yéen bu ñu ci jaaree am li nga xam ne mooy ndimbalam mbokk yi suñu borom yittewoo gi mu yittewoo ñu war a xam ni mooy al moo tax yàlla alquran saar wu ci njëkk muy fatiha mu tudd leen ci gayril maghdubi alayhim ci ñaareelu saar wu ci alquran muy baxara suñu borom li mu nettali ci ci histoire yahud ci suratul baxara kenn xamut nu mu toll ñetteelu saar wi yi ci dege muy surat ali imran yàlla nettali benn xeet ci biir banu israil muy ala imran ala imran lu wér ci waxu borom xam-xam tafsir yi mooy benn famille lañ ci biir banu israil te ñoom ñooy famille bi mës a jub ci banu israil ala imran ñooñu mariam ci la soqeekoo ñeneen ñu baax ñëpp ci banu israil ak yonent yi ngay dégg ci ñoo ci xeet boobu ci famille imran boobu lañ génnee ci biir banu israil mboolem yonent yi ñëw ginnaaw gi ci famille imran boobu lañ ci banu israil ñoom ñooy benn xeet bi baax ci waa banu israil ñoom la yàlla baaxal ci banu israil moo tax yonent yi ñëw yëpp ci aala imran lañ génnee ci biir banu israil bu dul ñoom koo jël ci banu israil ku yées la loolu moo tax suñu boroom ubbee ñetti saar yooyu ci alquran waxtu ci ñoom faatiha tudd fa yahudi ñettali seen histoire seen digganteeg Moussa ci li nga xam ni moom mooy suuratul baqara waaye nettali seen mbir ci aali imran mu ñetti saar njëkk wax fa ni bu baax ci ñoom waaye yemu fa ba nga xam wax nañ ne sax boo demee ci laaraaf suuratul laaraaf ak suuratu taaha ñaari saar la ñuy xam ne ñëpp xam nañ ne makkiya la la ñuy wax mooy problème waa màkk waaye ànd ak loolu pour yittewoo banu Israël ñaari saar yooyu gudd lool di wax ci waa Màkka lu bëri yàlla dugal ci biir nettali histoire banu Israël pour wane waa Màkka ne lu leen dugal ci ak ndëng te am na ñu leen rawoon te yàlla joxoon ndimbal ak yonentam kon mënu leen a def lu jaaxal yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu bokk na ci li nga xam ni wal maa taf si tudd nañ ko ci li tax ñaari saaro li ñu nekk makkiya makkiya yàlla dugal ci biir banu Israël tudd ci yahudi te yahudi ñëwuñu woon ñu ngi woon Madina Makka kufaaru Quraysh ñoo fa nekkoon allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walafaafa walghina allahuma habib ilayna alimaana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuqa walisyan ya xayu ya qayumu birahmatika nastaghis allahuma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata aynin wa aslih lana shu'unana kullah allahuma a'iz alislama walmuslimin wansur ibadaka almujahidin allahuma rudd almuslimina ila dinihim raddan jamila allahuma xarir falastin allahuma xarir falastin allahuma ansur ibadaka almuxlasin allahuma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain qumu ila salatikum rahimakum allah allah Allah